مثلا وإلى عاد أقاوم هودا وإلى ثمود أقاهم صالحا وإلى مدين أقاهم شعيبا وإلى هندك نيو أم لنيو دوخ جيم نيو نيب دفع أم تي لنيو دوخ جيم لولا نك مملا واجب الإشارة نانكو جماعة في الهود دجل نجي يونن تبي li nga xam ne moom nga takkale woon ci yeneen yonentu yi ambiyaaw yeeg mursalina yi fi la dajee si kon foofu lañ dox jëm waaye nag boo seetee ba ci biir mooy seen ëgal xaqiqat muhammadiyatu mooy awalu tëjali moom rek a bàyyee ko ci yàlla leneen lu ko mooy ci moom ci moom nga bàyyee ko kon dañu ñëw ci xaalamul insaan di ko ci bëralaat waaye bi mu dajee si fii war nañu xam ne fii kat lii kat ëggal ba rek lay tegtal bu ko defee Cheikh Namara Tidiane gannaaw boo xamee ne yegg nañ fiñ ñu yegg si téréb yàlla bi joxoñ ko ne ko wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamin muy ayni rahmati di gën yërmande ji mu wax ci làmmiñam ne falaa nabiyu min ba'di beneen yonentu dootul dikk sama gannaaw muy loo xam ne pour ñëpp la pour fépp la pour faw la ci la nag soxna Tijaani ñëw moom it xotti tarixaam labal mboolem tur bi xatmu wilaaya na xamee ne moom la yonentu xatmu nubuwa ne moom it fala waliyun ila min bahrina yusqa kenn dootul da waliyu lu nga naan ci suñ géej gi Baay Ñas dégg balal faydu ne al faydu tamtadu haysu kaanati tijaaniya waaye xam nañ ni tarixa bi fu lislaam hegg dana fa hegg faydu bi fu tijaaniya hegg dana fa hegg mu ne falaa aarifun ilaa bi baabiya waaqifun ñetti falaa yii lañ gis mu mel ni yonentu am na lum ñu am na fu ñu dajale am na ci lum ñu tënk Cheikh Ahmad Tidiane am na ci lum ñu dajale am na fu ñu dajale am na ci lum ñu tënk waaye bàyyi nag ba ñu dajalee ñun daf ñu booyal tënkub ñu daf ñu booyal Baye Maxtaar mooy wax ne mboolem tiijaan du jaadu mukk nga julli ci gannaaw koo xam ne dafay ŋàññi seexu tijaan di ko xarab ilimaan joo xam ne dafay ŋàññi seexu tijaan wala muy ŋàññi tariixam bi benn la mu ne ba mu def taalibe Baye moom dafay jël ilimaan ba def ko muy jëmmi Seexu Tijaan loolu tegtal la ci ne faydu tënkut dafa tënk waaye nag gannaaw bi mu paree ci taalibe loolu it dafa jar def taxaw ndax bàyyi dafa wax ne ñaar bokkuñ ci man ki soobu àgg bokkut ci man ki soobu àgg soobuwaat wu bokkut ci man kon nag su ne su ma taalibe su ma paree ci moom may naa ko mu wër àdduna dafa fekk ne dafa labal xaqaayiqu salaasa te loolu dara génnut ko bu la ci géejalee ba pare rek foo dem rek di ambassadeur am te bàyyi moo tiim ñëpp la maam maa doon wax ci la jàngal bu mënee ci réew mi jàppal nga yaa man ci réew mi jërëjëfee bàyyi bàyyi waaw doom ji su juddoo ci diggante ñaari waajur bu juddoo ci diggante ñaari waajur dafa mel ni péeb yàlla bi daf naan ndénkaaneem la maanaam dañu jël doom ji dénku ko ñaari waajur yi waaye doom jooju nag su demee ba màgg ba mënal boppam dañuy wëlbatiwaat ndénkaane li dañuy jëlaat ñaari wayjur yi dénk leen doom ji maanaam dañuy dénk doom ji ñaari wayjur yi bu ko defee nga gis ci màgg mënal boppam takk jabar dugal ci biir kër ga baayam ak yaayam wàccee leen boot leen mu mel ni foofu li ma bëgg a wax mooy faydu mën nga koo askanal ay way jur ci sharia bi ci tariqa bi waaye loolu nag du xaqiqa loolu du xaqiqa sharia bi attanul faydu tariqa bi attanul faydu faydu moo leen boot faydu moo leen boot gis nañu Mawlana Cheikh al Islam ci lenn ci ay ngontam lenn ci ay xëyam kula la faaw yi ku la faaw yi laa wax de kula la faaw rachidina yi seen jiiru dund liñ liggéey ci gannaaw yonent bi gis nañu lenn ci ay sëyi bàyyi ak lenn ci ay ngontam loo xam ne ñoom lañ liggéey mboole seen mot ko asaka kon bu waxee ne bi fayda yi yennaanu diinu raxwaliwaat ci sama fayda bi la drapeau l'islam di yëkkati ko mënees na koo dëggal gis nañu it ay xalifa yi Cheikhu jihaat fi def fi lu ne jaloore ju nañu def ko fi lenn ci fay ay fayu baay ak lenn ci ay ngonti baay dëgg-dëgg bu ñu xoolee ñoom lañ fi liggéey ba mu jeex mboole seen matut sax asakam kon kooku bu waxee ne tawaytu wa sahaltu tariqa ilal xaqi li kuri munidin wasdi lil xaqi bil xaqi war nañ koy mën a gëm kon faydatu bi moo boot tariqa bi moo ci dëgg-dëgg dëgg waaw moo taxit nag mu ne hal absarat xaynaaka misliya ndax sa ñaari bët yi le mos nay ci ku mel ni man bàyyi saa wa jës wal ulumul xuyub kenn du bàyyi waaw bam taalifee tafsiratul anam bi anam al huwa al imam anam bi yëpp dañ waroon ne li Baye wax mooy ku doon laajte faali ngooya ngi mu ne la humri dëgg ci sama dund bi maa fil bahri adra bihil bahri yu kenn gën ta li ci géej gi mooru géej gi wa inni man Baye man Baye bi maa fil bahri adra wa bil bahri man maa gën a xam géej gi ak li ci biiram waaw xadis am alxel mu kay imaamul xamal kon dafa ñëw di gëral mu ne imanité bi ci ne xam-xam mooy ilimaani jëf dafa reprendre xadis yonentu ndax xam-xam boo xam ne jël euh, jëf xam ne xam-xam lantaayu ko jëfi neen la jëfi làmbatu la jëfi tatale la te loolu du jëriñ dara koy péeb yàlla ba di ko considéré waaye loolu booy seet waxu yàlla la ndax taarifoo ni qabla an taabudoon yi na ngeen ma xam balaa ngeen may jàmm su ngeen ma xamut naka ngeen mooy jàmmoo kon kay jaamu xam na ne jëf la su ko xam-xam jiituwul du baax mu mel ni absurdité bi ci nekk moom la la bëgg a wax na la fa ilam taarifu ni fa kay fa taabu ni su ngeen ma xamul ngeen may jaamal kon nañ fekk te déglu bi alquran bi yàlla waxee ne fafiroo ilallah buur leen jëm ci yàlla duur ne dangay ngay tëb rek jaar fii wala nga jaar fële biñ laajee Cheikh na Tidiane daf ne buur leen dem ci seen ajimati waxtu waaye kay bu la ne xam ma dog ma jaamu soo ma xamul naka ngay may jaamoo déglu ko rek da nga dégg mu wax la ne la wa tabi sabila man anaba ilayya toppal yoonu ci dellu ci moom suxbatulaahi fi nagi loolu boo demee nag ca diggante mu dal da nga fekk ca yoon woowa ay condition yoo xam ne képp ku ko respecté jot sa kàppu téef képp ku war ak moom doo dem mukk am na nag ñoo xam ne seen dégg dafa gàtt lool ba ñu ngi inkaar tarixa bi ñu ngi inkaar faydu bi léeg-léeg sax ñu indi aayab alquran al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum islaama diinan akmaltu lakum diinakum ndax sariya rek la déedéet ndax islam rek la déedéet wa man yakfur bil iman faqad xabita amaluhu kon war nañu xam ne du lislaam kese loolu jarul man yakfur bil iman waaye lixsaanam fi xam-xam bu àndut ak xam yàlla boobu xam-xam nen la nen bu tojul njëriñ bi defee kon lislaam nixma la liimaan nixma la lixsaan nixma la akmaltu akmamtu masarul xilaafa la lay wax ànd ak nag ci làmmeñu maqaamaat lislaam lay waxee waaye nag boo ñëwee foofu da fa fekk ñetti maqaama maqaama bu njëkk bi xaam la ñaareel bi xaas la beneen ba ca topp xaasi xaas la kooku nag buñ ko waxee rek yóbbuwaale na yecca des